asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Al Mouridiyyah te di ñu topp seen émission bi daal sabaax amati nañu mbégte di leen nuyu tey di leen ziar jiital si nuyu bi ak ci ziar bi sunu sàng mun euh, Muntaxa Mbàkke xalifa général kulu murit ñaanal ko suñu borom mu guddal fanam waaye mu defal ko ak wér ba naa li nga xam ne su mun na ko ci liggéey maam ci Cheikhul Khadim mu yeggale ko ak sagoom te lépp nu ànd ko ak moom waaye lépp it nu ko ak uh, mboolem njabootuk Serigne Touba gi uh, kenn bañ a wuute uh, di fàttali rek ni tey la talaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier mille 2020 ñaar fukki fan ak juróom ci jumaa de Lula atam junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn muy 1441 ñaar kii fan ak juróom noonu la waaw ci euh, maamu koor hmm? jumaa de luula maamu koor su ko defee kon euh, ni ñu koy baaxoo di defee hmm? maamu koor newuñ ci maamu koor jumaa <laughs> jumaa de luula rakkaati gàmm moo ngoog rakkaati nga dëgg de sëñ Mourtala Sey itam mu fekk ma fi <laughs> ndax day tiit <laughs> wala suñu amaturé waaw nga dëgg de sëñ Maodo Laye mu ngoog kon rakkaati gàmm su ko defee kon euh, niñ koy baaxoo di def rek ci suba gu jot ñuy fas yéene di ànd bu fekkee ci suba talaata la comme tey ñu ànd ak euh, sëriñ Fallou Galass Dieng al imam su ko defee mu nekk suñu ganuk tey ànd it ak sëriñ Mouhamed Lamine Diouf mu dinu gunge ci waxtaan yi nga xam ne noonu la koy baaxoo di defee euh, su ko defee tey daan dugg ci buntu buntub alquranu karim buntub hadis xasida ak xikma jaar ko ci arminaat Eh, ci arminaat boobu daañu ci ak eh, Pape Babacar Ndour ngir mu tënkal nu xibaar yi eh, nu dale ko kon ci sunu gan gi sëñ Fallou Galas ñu al imam Serigne Galas wala imam Fallou Galas wala alhaaji Fallou Galas bu euh, ma ciy jël léppay dox léppay dox tey <laughs> macha allah asalaamaaleykum <laughs> ñu ngi ah. di jiital si nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké Mouride Sadikh mm-hmm. di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi dolli kàttan ak wér gi di mhm. ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Al Mouridiyyah ci télé bi wala mhm. ñu di ko déglu ci rajo bi mhm. ak bokk yi ne ci xarala gi euh, suñu Fallou su ko defee suñu Mamadou Lamine asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum ñu lay delloo nuyoo bu baax di ziare suñu Fallou Galass di ko sant bu baax ci teewaay bi di ziare mboolem ñi ànd ak ñun suba bu ne ci euh, asabaax euh, di jiital ci suñuy ziar Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bassir xalif général des Mourides di ñaan mu yàgg fi loolu di ànd ak wér mm-hmm. bu njëkk bi di buntu bu alxuraanu karim sadaqallaahu alazim jërëjëf euh, suñu mbokk yi nekk ci bi mu mel ne kon suñu Fallou Gallas euh, tey aaya boobu nga ñu euh, la c'est suñu moo dëkk aaya boobu mm-hmm. muy aaya boo xam ne si mu ngi ci suuratu Ruum mm-hmm. aaya 21 di waree ne rek takk soxna bokk na ci xéewali yàlla ci jàmm bi waxee ne bokk na ci ay kimtaanam mu bind ci yéen uh-huh. ñaar mooy ku góor ak ku jigéen uh-huh. ngir ñu mën a dal ci moom góor ñi mën a dal ci jigéen ñi uh-huh. waaye mu def ci seen diggante ak cofeel ak mbëggeel mu nekk kimtaan boo xam ne si nit ñi war nañ ci xalaat bu baax a baax noonu la ko waxee ci yeneen aaya huwa allazi xalaqakum min nafsin waahidatin wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha kon yàlla bi mu bindee ba noppi ci benn bakkan waaye dafit nga gis ne góor mi ngi dalee ci jigéen waxaati beneen aaya fan ki huma taaba lakum mina nisaa masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum ala taadilu fa waaidatin aw ma malakat aymaanukum waxaat ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna eh, loolu lépp aay yëpp di tegtale ne rek maanaam eh, yàlla bi mu ci xereñ suñ borom ni mu bindee góor ak jigéen waaye nag def maanaam jigéen muy eh, góor di dal ci moom dañuy wax ne dund goo xam ne ci dafa wéet ci lu ñu tuddee bànneex dafay nekk dund goo xam ne day waw lool dund gu bekkoor lay doon moo tax yàlla ni mooñaale doomu aadama daf ko mooñaale góor ak ak ak ak yëg-yëg bu muy am nga xam ne am na ci loo xam ne mooy tax mu bëgg a des ci kaw suuf si mm-hmm. moo tax yàlla bi mu jafee ci moom xaraais yi nga xam ne si mooy tax yëg-yëg yooyu nga xam ne mooy tax nit ki bëgg des am yu muy yëg ci bànneex ba tax mu bëgg a des ci àddina euh, suñ ko seetloo dañuy gis ne moo tax nit day daal di xam ci dayo bi nga xam ne ci lay da koy daal di leer naññ mm-hmm. waaye mu doon loo xam nag nekkul li tax yàlla <coughs> bind ko mooy hmm. am na yeneen ahdaaf yoo xam ne moo tax suñ borom bind ko yu tedd ndax dañuy wax ne fa innal far al karim laa yaati illa min aslin karim cosaan lu tedd moom la muy dikk rek mooy mooy euh, euh, bànqaas yu tedd moom ci cosaan lu tedd lay jógee hmm. Hmm. moo tax jigéen si muudi ka dañuy wax na jigéen ci ci bu yàgg dañ ko jàppe woon xayawaan boo xam ne amul ru euh, ñu daa wax sax ne nekkul soxna bi nga xamee ne nag bëgg nañu ñu koo sellal bëgg nañ koo jàngataat xoolaat ko sellal ay mbiram. Mhm. ci congrès bi nga xam ne defoon nañ ko ci France. Mhm. ci année bi ñuy tuddee 1686. Mhm. Euh, bokk na ci lañ ci tëraloon ñoom. dañoo wax ne nit la jigéen nit la. nekkut xayawaan waaye dañ ko bind ngir mu liggéeyal doomaa aadama. liggéeyal góor xayawaan mooy awrab. waaw nekkut xayawaan nekkut awrab daal. dañ ko bind ngir mu liggéeyal góor. waaye buñ seetloo ci aay bi ñu jàng léegi rek ak aay yi si gannaawam dañu gis ne alxuraan daf na ci ak leeral goo xam ne gu am solo la mooy wax ju am solo joo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee ci euh, quatorzième siècle <coughs> euh, wane na jigéen aayatun min aayatullaahi la mhm. kémtaan la ci kémtaan suñu borom yi yàlla da ko bind ci bakkani góor ñi mhm. laa min tiinatin uxraa bokk nekkut ci yeneen ban yi mhm. ci ki bi bindee ban noonu da koo bind ngir mu nekk soxna waaye nekkut ngir mbindaan la mu nekk mbindaan ndax boo gisee ma waddatan war a la wax fële mbëggeel ak cofeel mhm. mooy mooy am sa loolu moom moom day wax ne wa min ayati an xalaqa lakum min anfusikum aswajan mhm. kon jigéen nekkut euh, mbindaan waaye nekkut euh, xayawaan mhm. nekkut awrab kon yàlla de ko bind mu nekk ay aadamiyaat mislukum ay ñakk ay doomu aadama kom ñun euh, ngi mu bind gi bind jigéen nag muy soxna Mhm. ngir góor mën a dal ci moom mhm. sa ku na xam ne na dal googu mën naa nekk ci aju ci bakkan mën naa aju ci ruu mhm. mën naa nekk amru nafsaaniyun wa nekk wala mu nekk wujdaaniyun euh, su fekkee si loolu nag si la nit ki mën a amee li ñuy tuddee texek société bi mën a euh, dañ ci ak wéet waada dund ci dund goo xam ne du am benn yu muy togg yu metti moo tax alxuraan ci nii mu yaxalee dafay teg li ñuy tuddee fondation dund goo xam ne dafay ànd ak ñeeman te ànd ak dal ànd ak ak euh, ndokkeel mm-hmm. mu wax ne soxna mooy wéerukaayu borom këram mm-hmm. mooy saa boo xamee ne borom kër bi jógee na ci liggéey bi ci bis bi son lool ngir fàggu lum dundee mm-hmm. su boobaa su ñëwee ci soxna si soxna si moo koy dalal maanaam wéttali ko gannaaw baax de kat yi wa jux di yi euh, wa sëx yi wa da bi gannaaw bi mu jógee ci coono yu metti yi nga xam ne moom la yendoo ci bis bi ngir wuti ak dund ci toogaay yu métti yi taxawaay yu métti yi gàddu yu diis yi mhm. xeetu mel noonu nga xam ne moom la yendoo ci bis bi coono yooyu léegi nag suwal bitu ko ñëw ci kër gi nag coono yi nga xam ne daj na bu boobaa dañuy wax ni soxna si boppam mooy ki nga xam ne mhm. moom moo ko war a dalal ba coono yi dootu ko yëgati mhm. moo tax foofu dañuy wax ne soxna si dafay jaadu ci moom mooy mooy daje ak euh, borom kër bi ci waxtu wu nga xam ne wàcc na ci mbégte waaye ak kontaan ànd ak xar kanam bu leer nañ ñi waaye reeju neex Euh, si waxtu wu mu doon koo xam ne da koy déglu bu baax borom kër bi ànd ak xol boo xam ne boo am yërmaane lay doon ak waxtaan woo xam ne wu neex woo xam ne dana mën a wayefal cooni yi mu jógee woon mhm. waaye dana mën a dàqit yi mu doon ci xel mi foofu la ñëw moo tax alxuraan di wax ne kon soxna mooy dalukaayu borom kër bi mhm. ci beneen côté nga xam ne si bu wàññee coone bi nga xam ne moom lay daj ci bis bi mhm. am na beneen côté boo xam ne si yéen moom it moo gën a am solo mooy mar bi nga xam ne yàlla mar mar na ko moom góor gi boroom kër gi ci yëg-yëg yi nga xam ne suñu borom da ko mooñaale mu war a sa munta ñàkk ci moom nga xam ne si lay mën a naanee ci soxna si ba mën a euh, ci cëkk ba mën a loola mu mën koo aar ci leneen ci aw mar lu mel ne wàllu jinsiya rapport nga xam ne euh, ci lépp nag mu tegu ci mbëggeel ak cofeel ak ak laab su ko defee euh, góor gi foofu la ab kolam di mën a dalee ci lu xaraam waaye ay cëram it si lay mën a dalee ci di tàbbi ci loo xam ne ci ak caay-caay la wala muy barasteku di dugg ci loo xam ne ay njuumte lay doon uhuh. c' est que loolu rek soxna si mooy taxaw taxawaay bu mel noonu moo tax bi nga xamee ne wax nañ ne almaratu sarrun kullaha uhuh. wa sarru ma fiha annahu la wax ne jigéen ci boppam lépp musiba la lépp lu nekk ci moom bi daanaka musiba la uhuh. waaye nag mënta ñàkk mënta ñàkk ci aay bi si ngay déggee ne jigéen kon nekk na loo xam ne mënta ñàkk waaye ba nga xam ne ndax day taxaw ci côté côté góor ci wet goo xam ne mën na see ñàkk mhm. kon góor gi mooy dem wuti dëgg la loo xam ne si moom la euh, soxna si du dundee ak njaboot gi mhm. waaye su ko defee bu ñëwee ci biir kër gi tim ku koy dalal mhm. ba dootu yëg coono yi nga xam ne mi ngi doon jànkonte ci bis bi lépp boobaa dañuy wax ne nag kon soxna si lay doon moo tax yàlla di wax ne kon kéemtaan la boo xam ne bind gi nu ko bindee lëkkale leen ñoom ñaar nga xam ne kenn mënu cee bàyyi sa morom su boobaa dañuy gis ne kéemtaan la boo xam ne ñoom war nañ ci xalaataat bu baax a baax sa xam ne war na soso ci li ñu tuddee mbëggeel ak yërmaande waaye su mur ko fi ñu mujj rek waa jigéen joo xam ne nag maanaa ndax jigéen dana mën a soxna dana man mm-hmm. soxna si nga xam ne day génn kër gi diir bu yàgg mm-hmm. ay waxtu yàgg mën na di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu yàgg lay doon mm-hmm. bu am ay coono ndax dana mën a taxaw ci côté jëkkër ji ci nii ko alxuraan bëggee nga xam ne du ko dalal ci côté yëpp waaw bu wàccee mu mu mu mu mu mu dalal ko tànqal ko ndox toppatoo ko reeju neex déglu ay waxam xëy na mel noonu féexal ko ci coono yi mu jóge woon mhm. waaye ak jafe-jafe yi mu yëg ci xol bi mu mën koo dalal mhm. Mhm. ndax dañuy wax ne jigéen ji nga xam ne si moom day génn këram diir bu yàgg-yàgg di liggéey liggéey boo xam ne bu metti la ndax loolu dana mën a taxaw ci lu mel nii moo tax nag mu alxuraan di bëgg waaw jigéen ji nay toog ci këram suy suy génn mu génn ci loo xam ne lu munti ñàkk ñàkk lay doon sa loolu mu am ci ndigalal borom këram kon daal jigéen warta liggéey non mën naa liggéey ci ay conditions yoo xam ne si ay sart yoo xam bu xasee ba daje ci moom sart hmm. yi mën naa dem liggéey waaye su fekkee ne sart yooyu dajiwut ci moom jarut muy dem jarut muy dem ci misaal rek jigéen mën naa génn su fekkee ne dafa am liggéey boo xam liggéey bu dagan la hmm. boo xam ne si bu boobaa la fa yàllay tere du ko fa def hmm. su boobaa dagan na ci moom mu dem liggéey waaye ci anam googu lay tëdd day tëree su fekkee ne borom kër bi ne mënaan na ko lépp nag bu boobaa dootu ko jarati d'accord mu ngoog euh, xam nga euh, aaya bi euh, dafay ay boo xam ne si ay bu am am am am solo la muy parce que dafay doxal relation bi nga xam ne moo jaar ci diggante góor ak jigéen nga xam ne faaw ñu ànd mënta ñàkk faaw nit di am soxna faaw soxna it di am di am borom kër waaye loolu ci ci ci relation boobu di am li ci am ay tension yu bëree bëri yoo xam ne si judd na ci góor ñi lekk-lekk pouvoir bi leen suñu borom dénk hmm. léeg dañ ciy xaw a fo maanaam dañuy dañ ciy abusé ndax dañuy wax nga ko léegi jigéen du xayawaan du jaam mhm. waaw dañu ko yëkkati jox la ko muy nawle mhm. nga war a am noo xam ne noonu ngay nekkee ak moom mhm. am na ñoo xam ne tey bu ñu leen joxee soxna rek ñu yaakaar ne waratuñoo lem seen mbubb ñoo xam ne bu ñu leen joxee soxna rek tey ñu yaakaar ne euh, dara lu war ci biir néeg bi lu mel ne defar néeg bi wala yëkkati dara teg fenn wala yooyu waratu leen ñoo xam ne bu ñu leen joxee soxna yaakaar ne tànk ci ndaali naan moom waratu leen moom faaw dees leen koy defal suñu la ko mënee defal moo gën waaw moo gën te moo bokk na ci liggéeyam waaye nag du caagante ne xëy na euh, da jël sa lépp rek wékk ko ba mu mel ne ak njaam mooy jaar seen diggante te ñaare eh, man nañ ne jafe-jafe yu bëree bëri bëri ci sëy yi ñaare lool moom moo koy waral maanaam góor gi day bëgg a jël pouvoir am ba mu ëpp jigéen gi tamit di ko wan man du ma sa jaam hmm. waaw léegi loolu xëccoo boobu <coughs> loolu rek suñu delloo ci aaya bi hmm. gis nga aaya bi di tudde mawaddatan wa rahma hmm. mooy mbëggeel ak yërmaane ak yërmaane waaw mbëggeel ak yërmaane nag su nekkee ci ñaari nit fokk ñu jàppalante day mel ne nag su problème amee rek ça veut dire que ñaar yee dafa manqué waaw ñaa manqué daa tax mbëggeel ak yërmaande gi saa rek mhm. problème mën naa am waaye fii ak ak yërmaande mi ngi mhm. hmm. na koo seggal café man na koo toggal ah, waaw waaw du na koo fóotal du dara waaw ah, mhm. parce que li ko lal mooy mbëggeel ak yërmaande mbëggeel ak yërmaande donte sax du wàllam waaye nag mbëggeel ak yërmaande mooy yóbbu loola mooy dugal lu mel noonu moo tax li ci suñ wax sëy yi koy lal ci mbëggeel ak yërmaande ñaar ñu bëggantee am yërmaane dox ci seen biir mhm. su boobaa c'est la sëy bi normal mhm. d'accord waaye li ëpp ci sëy yi nag ñaar yu day dàqu mhm. bu ñaari yi dàqoo nag lay des kon mooy kenn ku nekk bëgg a wan sa bopp sa morom ndax koy mu bay joxe doom ji na ko dóorloowu ma la saagaloowu ma la dama laa yor dama laa yor yor nga delloo nangam <laughs> waaw loolu ko ko wax doom sax yaa ko tasloo yaa ko tasloo mu ngoog euh, suñu waaw léegi mel kon euh, un mal nécessaire la ñu koy tudde bu doon ci français loo xam ne si <laughs> maanaam dañuy lor waaye ñu koo ñàkk muy ji relation diggante da ngay gis soxla soo xam ne day dem yàgg mu ne man kay sëy moom pare naa ci góor ñii ñoom ñëpp a wala góor goo xam ne si def naan soxna yi kay moom man du ma ci barale benn bu ma ko ci yoree doy na sëkk ndax ñoom ñëpp a yam mu mel ne kon am na ay jafe-jafe yu bëree bëree bëri yoo xam ne mi ngi ci seen mi ngi ci diggante relation bi te moo ne mënta ñàkk mu ne si koo teggi faaw jaare si waaye léeg-léeg ay coono yi mu lay indil da euh, ngay waaru noonu tamit ngay gisee koo xam ne si maanaam ñàkk cee duggam moom wala yéex cee duggam moom lay rëccu mm-hmm. waaye du du du dugg ci boppam mu wane daal suñu borom moom lu mu def rek loolo mooy dëgg rawatina li mu wax fii euh, te Sëñ Fallu wax ko léegi nii mm-hmm. muy mawadda ak raxma gi nga xam ne si moo war a jiitu ci sëy bi muy bëggante ba pare yërëmante waaw loolu de yaakaar naa euh, sëñ Fall indi na bunt bu am solo ah. boo xam ne maanaam mm. dafa ànd ak dundi nga gis lislaam mm. ni mu dooni diini joo xam ne mm. néew nit ñi dem leen lijjanti seen àddina fële mhm. bu ëllëg ëllëgee ngeen dajeeg suñu borom lépp da koy boole lijjanti ah. ndax li mu wax nii ci alxuraan la ne kon gis nga loolu lu am solo la mhm. te it euh, bokk na ci loolu liñ ci liñ ci bëgg ci loolu rek mooy yéen def saa sam dafa noonu jigéen ñi ki ci gën mooy koo xam ne mhm. tey boo ko gisee maanaam soxol sedd kon loolu cofeel gi moo koy waral xikma sax dañ ne bokk na ci yi nga xamante ne day dindi maanaam ñagg-ñaggi xol sa soxna soo mm. xamante ni cofeel goo dox na seen diggante ak mm-hmm. toog say xarit di waxtaan ñoom ak yeneen ak yeneen euh, muy am nag ñaar ñoo xamante ni dafa am ci wet gi mm-hmm. lii góor gi la war lii jigéen ji la war mm-hmm. waaye nag euh, faral di wax ni euh, ñaar yoo xamante ni ñaar ñoo xamante ni dañoo siq mbir te bu sikkee duñ ko laaj kenn ki kenn kenn ki rek lañ koy laaj. <laughs> <laughs> mel ni kiñ koy laaj moom. Mhm. moo war a fexe gën a wàllam gën a dox. dëgg la ndax lislaam yonent bi saasam dafa ne woon ki gën ci yéen. mooy ki gën ci ni muy nekk ak ay waa këram. te man maa gën ci ni may nekk ak samay waa kër. Mhm. ndax bis ba ñu dégg addis boo xam dañ naan soxna Aïcha nee na nangam. Mhm. wala soxna Hafsa nee na nangam wala Ummu Salama nee na nangam. ci loo xamante ne tey am na góor ñoo xam sax defe nañ ni seenu kawe yegg na ci loolu waruñu ko def te moom moo gën a màgg ñëpp moo gën a moo gën a kawe ñëpp te loolu mi ko def kon loolu maanaam jàngale ba moo tax mhm. euh, bu loolu jàllee nag euh, Imaam Xasal dafa ni yi nga xamante ni bëgg bokk na ci yi tax nit di ut soxna mhm. bokk na ci lii Sëñ Fàllu wax mhm. mooy day am yëg-yëg yu nekk ci doomu aadama te nee na ci jigéen rek lay mën a saafara kon mooy li si doon wax da ngeen am tawat joo xam ne mm-hmm. ñoom rek ñoo am saafara si moo tax mu ne bàyyi leen kuñ ci jox soxna nga defee ne ab jaam lañ la jox mm-hmm. duñu seeni jaam mm-hmm. yéen ñëpp ay jaami yàlla ngeen yoo xamante ne dañoo bëgg ngeen ànd jaamu yàlla waaye nag euh, bu loolu amee nee na bu loolu jàllee itam bokk na ci su fitna jooju dalee yi nga xamante ni tey jii nit ki day am day am yitte yi su demee ay man de sama néeg ba sama kër ga sama nangam waaye bu xelam demee ci ne man de ak xam naa ne ka ma fa bàyyi de su xar yi eh, waree am ngooñ dina leen ko jox mm-hmm. su ñu waree roose fleur yi mm-hmm. dina ko roose xam naa ni su xale yi jëlee seeni saaka gi ba noppi dina tëj sama armoire bi ngir bañ ñu jël fa dara mm-hmm. su xale yi ndékkee ba noppi dina tëj waañ bi ngir bañ kenn jaar fa gannaaw ma kon loolu yitte la yoo xam ne yow yaa ko waroon def waaye am nga koo xam ne moo la ci wutu nee na loolu itam moo tax sono su baax baax loolu dëgg la leneen li ci des tamit mooy mu des nag moom wàllam maanaam ci ci ci ci ci ci ci soxna si mm-hmm. te xam ne ke ko suñu borom booleel muy borom këram mm-hmm. jàngoon nañ ko fan yële weesu rek yaakaar na sëñ Fallou ko fi indi woon mm-hmm. sëñ bi doon ko dénk soxna Penda Diop ne ko na nga xam ne kat jihaadu jigéen mi ngi ci topp seen boroom kër ci lu amul werante saa boo xamante ni jigéen boroom këram gërëm na ko yàlla suñu borom dana ko gërëm boole ko ay xeewalam waaye nag saa boo xamante ni borom këram gërëmu ko suñu boom du ko gërëm ba faw loolu waral nag wet gi gën a metti euh, ñi nga xamante ni dañoo xam ñu ci bari ñoom dañ koy féetewoo ngir xam ne euh, liggéey la boo xam ne du du du du du du maanaam du neen ndax ki ñu koy defal moom su fekkee sax xamul xam xamul xamul boppam wala melul na mu war a mel uhuh. waaye yow li tax nga di ko def te mu boole leen loolu suñu borom dul neenal moo suñ bay jaxe dafa am benn seet bu mu doon dénk mhm. ne jigéen bu dee sëy ci kër mhm. tey bëgg sëy ba di neex mhm. nay muñ te sax ci ndigal tey tontu tontu lu neex xam nga loolu maanaam tàmbali <laughs> <laughs> maanaam tontu lu neex loolu mooy suñ fàllu wax salaamaaleykum ah, wala ci muñ ak dégg ndigal tontu neex te ah. loolu maanaam tàmbali rek la ah. te nee na tey bari na koo xamante ne dañ naan nañ ko delloo ci kër gi nee na nee na nee na ngir mu yeggali njàng ma nee <laughs> li ci ëpp ñaari lay doon uh-huh. njàng togg uh-huh. walla njàng tontu oh. <laughs> ne ko loolu uh-huh. day loo xamante ni mënul ñàkk nee na nag nee na bi ci topp mooy tey fóota koy togg tey ree tey waxam bañ a nax baatam di jëm suuf te bu mu te bu mu jékki xuloo ak a jeex ak a xeex gis na kon foofu indiwaat na tamit tey am na ñoo xamante ne tey kon kii moom xam nga kenn naan bu mu xuloo waxul sax ak boroom këram waaye am na ñoo xam ne bu ñu doon wax ak seen borom kër waa mbedd mi ñëw ak si leen uh-huh. kon nee na na baatam di jëm suuf moo tax gis tey eh, jigéen ñu bari ñoo xamante ne tey jii uh-huh. eh, dañoo am ñu yar leen uh-huh. ci yenn kër yu mag yi jàngal leen ak taalibe ak leneen ni nga xamante ni ni la ñuy wuyoo seen i borom kër wala niñ leen di nuyoo wala niñ leen di eh, sukkalee wala buñ leen yónnee ñuy dem nee yooyu yëpp dañoo defe ni maanaam bokk ci waaye ñoom la ñuy sàkku moo tax. dëgg la. ndax euh, maa ngi dégg rek sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Mbacke. waaw mu sëñ Modou Mbacke gelongal waxtaan wi mu doon def ci soxna Faati Penda. muy leeral ni sëñ mag bi ci kër gi amoon na ko ñuy wax soxna Amar. boo xam ne bu fa nit mosaani ñëw moom lañ lay booleel. moo la naan sëñ bi kat nii la ñuy waxee moom. nii lañ koy nuyoo. su la yónnee nii ngay def. soo koy liggéeyal da nga naan bismillahi booy def nangam da ngay ànd akum jàpp nga xam ne yow loolu dala ci tàggat ba jàpp ne mhm. lañ lay lañ lay jàngal mën nga ko mhm. mu ni sëñ bi ah, yaakaar naa ne de la moo doon defloo ci moom mën na mu soog a tàmbali jëfandikoo yow kon loolu kon lu am solo loolu maanaam maanaam préparation loolu nag mhm. mooy tax tey jii euh, loolu yëpp am nga gis ne tey jii euh, ne na nee na loolu euh, day tax liggéeyu kër. Mm-hmm. ak tontu. ak waxtaan. Mm-hmm. ak maanaam euh, neex deret mm-hmm. neex tontu ak yeneen yooyu yëpp nee na loolu bokk na ci yi nga xamante ni jigéen moom daf ko war a jàng. dafa am na kilifa bu baax gu doon soññ ay jigéen ne nit moom. ne na kilifa. nit du ko tànnal boppam yàllaa koy tànnal. waaw wallaay wallaay. nag maanaam dafa mel ni sens la. ne ma ko mën a misaalee dafa mel ni loterie rek boo xam dañ naan dugalal sa loxo. nga dugal génnee. ñii dañuy dugal génne kilifa gu leet mhm. ñii dugal génne kilifa goo xam ni kenn du mën a dëkk ak moom ñii dugal génne kilifa gu nangam waaye nee na nu mu mën a mel yow mhm. yow bul xool bul xool si këpp xamal ne maanaam sa sa kilifa la yaay seet mooy def ba mën a jëriñu ci moom dëgg la mu ngoog jërëjëf suñu Mamadou Lamine Diouf euh, jërëjëf it euh, Serigne euh, Fallou Gallas Dieng al imam nga su ko defee ñu daal di rek jàll ci beneen bunt bi nga xam ne moo si topp bunt bi bu xadis bu bés